ubbi kenn kees musuma woote te joxewuma tey nag moo wootee di wax ci sama bopp di wax ci askanu Kees di wax ci askanu Sénégal pour njëriñ bi nga xamante ni moom la ñu bëgg mu doon njëriñu Kees balaa mu nekk njëriñu benn dëkk ñu Kees waay njëriñ ndax bu ma nee Sénégal am na njëriñ damay dëkkee ni Kees am na njëriñ te bu ma liggéey kees gi amee njëriñ sama bopp lay njëkkee ni am naa njëriñ. may wax ne rek sama waxi démb mooy sama waxi tey bu dee sama jëmm rek. wàll taxawu ma kenn loolu lu ma gëm ñu ciy loolu rek nga ciy séddu boo ci ëppalee ba nekk loolu sama jaamur boo ci bëggee yàlla teg sa ko gis. di réseau boo xamante ni ko ma Samba joxuma ko ma Demba maa ko téye sama bopp ñàkkal ko li tax nag ma ñàkkal ko sama bopp dafa nekk sama fit ak sama xol ndax boo amee xol joxe te amoo fit joxe doo joxe mais yàlla dimbali na ko sëñ Babacar Sy may na ma fit bi may na xol bi ba loolu ba ma jàpp ni li may joxe ay wërsëgu jàmbur la ma ciy am ba dama ci ko fexee ni ko naxee ndax ku am doom bu ah. di nga fexee sa doom gën gën la wala gën la doxee waaye radaar doo mën a doxee dina ko gën doo mën dina ko gën ndax ko nga muy Serigne Babacar Sy dafa mën dem mën tey mën suba moo tax bi ñu jubloo ci lii nga xamante ne jëm muy élection yi législative yi dégg naa léegi ñu ko fi wax naan Aliou Kane ndax investir ko man buñ ma investir woon su fekkee ni ma koy doxalee ak askan bi dëgg la ci man askan bi ñoo may faral seen bopp te ma xëccu waaye nag lépp looy wut lu ne na nga bàyyi ba heure bi jot bu jotee yaakaar naa ne boo may wuti dina yomb lool te doo ko jox kenn te man wutuma dara xaw ko ci ndigalu Serigne Ba ndax maa ngi fi nekkoon ak samay morom ci Ablaye Wade ba ci toll ku nekk di jéem di def waaye ku nekk kala xooloon moom pare pare kon man su ma bëggee sama président woo ko Serigne Bamba lu nit di wax ci àdduna bi tax mun ko waay lii ñu jëm yaakaar naa ne moo fi dajante li tax bu ñu toogee seetaan dañuy doon yaafuus ndax dañoo dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi bokk ci ñi nga xamante ni bu ñu waxee ñu dëgg leen bokk ci ñi nga xam ne bu ñu jógee ñu topp leen te askan bi tey décidé en rivalité ensemble ne dañoo jàpp ni fii la ma jay saytu ko xam li ñu bëgg may naa leen di fekk nag nit boo koy wutal da ngay ànd ak moom fii ñu nekk la cay tekk tekk te nga mën koo dindi nga ànd ak ñoom taxaw ko bul kenn élection yi ñu passé muy locale 2022 yéen jigéen ñi enveloppe yi nga xamante ni maa ko joxoon caution ni ma ko yéen ñu ci ëpp yéen a ko cotisé joxoon na ko seen suñu borom def ni ñu dugg ci am ci ndax ndax li mooy sànq témoin bi ëpp doole ci Thiès ñu ñoo ko gagné boole ci leneen nekk nag deuxième ci élection yi te nekk ñu woon en coalition mais kenn lañu àndal lu muy président Thierno Alassane Sall. ñu dem ko ci côté opposition. ñu demaat ci élection sama grand sama grand bi nga xamante ni moom la ñu àndaloon moom la ñu wuti woon place am jël ko muy président Seck mu tàllal ñu loxo xamal ni bu bëggee bokk ci élection présidentielle yi il faut que ñu wàcce suñu loxo daañu koy meññ ànd ak moom delloo ko leen jëlee ci moom mu delloo lu jafe ñëpp leen lu sotti suñu borom def bu sotti ñu delloo ko daal. waaye nag ndax nag foofu ko waxee dafa demee yaa Serigne Babacar mën ngeen lu ne damaa bëgg yaa Serigne Babacar ngeen delloo ma li ngeen jëm ci man. ma ne bu neexee yàlla maa si ne ko delloo ko delloo dund yi nag ubbeeku ku nekk woote na ku nekk wax na waaye booy jiital ay nit da nga topp du mën naa rek wala am naa rek suñu borom na lu mu lu nit ñi man maay jëriñ nit ñi dem fii kenn mënu fee jox nit loo ko jox ba mu bàyyi kenn mënu fee may nit loo ko may ba nga xamante ne dina la te jéem a ubbi woon benn léegi am fees ak xaalis nga taxaw mu lay jox tant que mu lay jox yaa ngi jël kon kon damay nit mu amul. moo tax tey à travers kees suñu moomeel jéem mon frère Yacoba Sall mii toog sama bu ñëw taxaw sama wet mu mën a passé sama discours parce que su ma njëkkee wax su ma njëkkee wax yàlla dina def ni kon mën ngeen a xam fu ma jëm mais tey damaa def ay façon. mooy fexe naa ba t-shirt ngeen sol ñëw ci salle bi kenn gisu ci logo wu kenn logo bi ngeen mooy la paix mooy weex tàll moom laa indi tey yaa ngi ko ba je viens à l' côté comme ça su ma yëgalee sama kàddu kàddu yi nag dama ci ànd ak sama papa xaalis Samb sama yaay Ndeye Mbaye sama frère Pape Doumbia sama frère docteur di ci boole ñi nga xamante ni ñoom BSL staff radar yëpp staff président Aliou Kane yëpp ak jigéen Thiès su ma nee rek bàyyi naa ñëw ci yow mais dama ne jigéen ñi ma toll jigéen ñi ñoom ko yóbbu li muy bëri bëri yëpp jigéen ñi ak man ñoom lañ ma boole woon ñoo ma indi ba fii dinaa yàlla yónnee samay waajur ak Serigne Babacar Sy diggante ak ñett yi laay ki ma leen joxoñ ki ma def seen xel ak ki ma dugal seen xol moom mii di Yankhoba mu jeeti roy bu important di sama xarit di sama lépp di sama frère di nuyu de passage notre frère Cheikh Fall di leen wax ni man Habib Kane à travers Yankhoba Sall wan leen ma ngay joxoñ faveur son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye incha allah dañ ne balaa maa jëm dina la set sax da ngay wax ci ni ñu ko sóoree ak lañ koy def ak bañ koy yàq incha allah karim bu dugg angay dee amul samedi à minuit ñu ngi dee suñu mobile kon de bokk ñu investir mais jàpp nañu ñu ngay kan la partie passive bi nga xamante ni le président Ousmane Sonko moo ko jiital ba nga xamante ni novembre incha allah di sant bu neexee yàlla à 15 heures man de dinaa ànd ak cette jeunesse dinaa ànd ak ces femmes là dina am place de France jubilé notre victoire incha allah le 17. di wax ni ngeen may ma tuuti ma may leen ma tuuti Maïs may leen ma tuuti. moo ñu boole ci coow li mu tëj kàddu yi ñu ñaanalante di invité xale bu fi ne invité naa la samedi à 23h sama buntu kër parce que minuit zéro zéro dinañu wan ni Thiès am may dégg nag ci ñi nga ni ñoom lañu bokkal dëkk bi ñu naan parti passif dafa am doon un vrai patriote léegi man li may def mooy dama lay boole patriote yi ngeen ànd liggéey comme ça nga xam ne kenn dootul tàllal loxo waaw taxaw bi lay jox dafa war a jeex ci réew mi te pratiquement nit ñëpp fu nekk nii la majeure partie boobu loolu lay bëgg mooy maanaam xaalis bu demee côté benn nit téego di woon di leen jox loolu nag waa jeex nit ki dana war a am ko dignité xaalis bu ñu ko joxee nañ ko war a jox ñu jox ko ñu ko war a jox ko naa ci loolu lay yëngatu ci lay dox ma ne ko dinaa moom ngeen ànd liggéey Thiès ba ne benn xale benn femme dootu fu taxaw naan nañu ñu jox ko mu ne ma man Cees daa ma ko nekkal lépp loo décidé décidé naa ko ndax xam naa ne baax la doo ma boole ay nit ñu ma ne ko kii ma lay boole man xam naa ne mu mën ci man mënu ma ko wax na ko léegi ay kàddu da ngay am fit pour joxe am xol pour xam naa am naa xol bi mais fit bi des fois mooy des te moom ci la ci la ci la mën a ci la mën a gaay li muy joxe bu ko dajaloon heure bi waxatuñ ko lépp lu mu yor ci nit la koy def dañuy ànd ci oto mu yor dix vingt quinze millions da koy séddale ba mu jeex ba mu jeex léegi nag mën na ko am mën na ko actuellement nii ñi yor réew mi

bi fii du ñu am waaye ñu naan yoon nañu léegi nag ñuy ñaan mooy campagne yi incha allah rabbi comme ni ko waxee le 17 ah ñu jox ak waa Pastef majorité bi te incha allah rabbi ba ñu amee majorité bi di ngeen xam ne Habib mu diggante ak yéen dina te xam naa ko lu def ba ko bu ko góor la laa waxoon ne dinaa ko wax. ndax waa Louga bi daal mënu maa joxal fii pour nga wax kàddu yooyu waaw kon waaw kon vraiment maa ngi leen di nuyu